wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa bikum min nicmatin fa bokk julli di assalaamu aleykum wa rahmatullahi noo ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp di bal xaq ñëpp te koy balu di ñaan borom bi subhanahu wa taala yal baal nuyoo bi ak ziar bi nu ngi ciy jiital sunu bàyyi sëriñ Alxasan Seck yàlla yàlla yokk ko wér gën a guddal fanam gën a barkal ak dundam ak lim njaboote lépp noo ngi nuyu bu baax imam ratib sëriñ Cheikhu Amadou ak ñi mu bokkal liggéey bi di nuyu chef de village sëriñ Alxasan Ñaan Seck Ibrahim ak ñi bokkal liggéey bi ci ay chef de quartier di nuyu bu baax sëriñ Cheikh Mbub Alquraan ak njabootam gépp rawatina njaboot gi nga xam ni ñooy jàppalanteeg moom ci liggéey bi fii ci daaray xaaja Binta Thiaw numéro 1 ci Thiénaba yal na yàlla yokk barke ñépp liggéey bi yal na gën a ñoŋ yal na gën a barkeel yal na gën a rafet barkeb alquran yal na gën a sotteeku ci njaboot gi sunu fàttali gi ci diirub fanweeri minute lañ ma wax laaye ju rëy la ju nekk ca suuratul baqara tolloog laaye ñett téeméer ak juróom fukk ak juróom di aayatul kursiyu laaye jooji day buñ ne dañ koo bëgg a waxtaane ci benn jotaay waxam laay ji ku nekk dina ni tuuti na ci waxuma laak nag ñu ni dañ koo bëgg a waxtaanee ci fanweeri minute kon dañuy cof dara ci liñ mën a xam ci laaye yi ba beneen yoon insha allahu kon aayatul kursi yu la ñuy waxtaane micro aayatul kursi yu la waxtaane laayatul kursi jooji nañ ànd dégloo bu ñu paree dog cee ñëw allahu rabbi bismillah What? allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum laaye jooji day yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo ko jox ab melo melo ji mu ko jox mooy acdamu ayatin fi alquran alkarim laaye ji gën a rëy ci alquran alkarim ba mu jeex moo ndax alquran xam nañ ci laay ju rëyul déedéet moo ndax alquran xam nañ ci lu amul dayo waxuma sax jëmmi alquranul karim waaye sunu dund gi nun ay nit ak li nekk ci sunu biiru dund lu ci lëkkaloog alquran rek amul dayo waxuma laak nag jëmmi alquran ci boppam di téeméeri saar fukk ak ñeent ay aayam romb juróom benn junni aaya laay yooyu ci nekk yépp diggante alhamdulillahi rabbil alamin wala bismillahi arrahmani irrahim ju fatiha ja ba ca minal jinnati wan naas ja ca suuratu naas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxoon ci jenn laaya daañu laaya ji moo ci gën a rëy laaya jooju kon am na alimaamu saadi rahimahullah bi muy jéem a feeñal dayob laaya jooj yi daa wax ni ayatul kursi day mooy acdamu ayatil qur'ani wa afdaluha wa ajalluha moo gën a rëy ci ay alqur'an yi moo ci gën moo ci ëpp ngëneel waaye it moo ci ëpp dayo moo ci gën a màgg mu ni wa dalika lima shtamalat alayhi min al umuri al azima wasifaatil karima ndax li laaya ji lëmb ci ay mbir yu rëy ak ay melo yu tedd yoo xam ne lépp day dellu ci borom bi subhanahu wa taala waaye al imaamu nawawi moo gën a leeral wax ji ci saxiixu muslim sharxu saxiixu muslim daa wax ni waroom xam-xam yi nee nañ li tax laayatul kursi yi gën a ràññeeku ci aaya yi alquraan yi daa dajale nday li ñuy tudde al asma wa sifaat mboolem tur yàlla yi subhanahu wa taala mboolem meloy yàlla yi subhanahu wa taala day dellu ci juróom-ñaar maanaam juróom-ñaari melo yi may waaj a wax moo boot mboolem al asma wa sifaat al imaamu nawawi nee na waram xam-xam yi nee nañ li tax ayatul kursi yu gën a rëy ci mboolem ay alquran yi mooy mboolem juróom-ñaari sifa yooyu nga xam ni daa boot mboolem al asma wa sifaat yi ñu ci yàlla xamal ak yam ñu ci xamalul lépp daa daje ci ayatul kursi la ca njëkk mooy al ilahiyatu nekk gi nekk yàlla nekk gi yàlla nekk yàlla ñu war koo jaamu daa feeñ ci ayatul kursi yu al waxdaaniyatu nekk gi nekk kenn laysa ka mithlihi shay'un daa feeñ ci ayatul kursi yu al xayaatu dundam gi nga xam ni manqué du ko gaar ci genn wàll daa feeñ ci ayatul kursiyu al ilmu xam-xamam bi nga xam ni dara génnu ci daa feeñ ci ayatul kursiyu al mulku nguuram gi gu mat gi tax mu moom lépp dara génnul ci moomeelam daa feeñ ci ayatul kursiyu al qudratu kattanam gi tëlewul lenn daa feeñ ci ayatul kursiyu al iradatu nammeel gi muy nam ma def ba tax mu ciy def lépp lu nekk daa feeñ ci ayatul kursiyu kon ndey al asmaa wa sifaat yépp daa feeñ ci ayatul kursi yu looloo tax ayatul kursi yu nekk aadamu ayatin fil quraanil karim waaye juróom-ñaari safa yooyu boo ko xoolee ñoom ñëpp dañuy delluwaat ci ñaari baat alxayyul qayyum te ba nga ne allahu laa ilaha illa hu rek moom nga ci teg du ñu guddal ci laaya ji insha allahu dinaa taxaw ci maanaay laaya yi ibaara par ibaara ci lu gaaw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 wala yauduhu xifduhuma juróom-ñeenteel ba di wa huwa al aliyul azim nañ taxaw ci ibaara yooyu benn ibaara bu nekk ñu def ci benn minit wax ay maanaamam buñ ci paree ma jox leen ci ay secret ki dog ma jox leen ci ay secret ki dog yoo xam ne dama koo jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma gën leen a nag lenn ci waxi waroom xam-xam ci lan moo jox laay ji a'zamu ayatin fil qur'anil karim bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim Allahu la bokk yi laayatul kursi bu ñu ko seetloo lépp yàlla la dara génn ci borom bi subhanahu wa taala bokk na ci li koy firndeel mooy daa tàmbalee tur yàlla te ismu zaat la tàmbalee waaye jeexee turu yàlla wa huwa al aliyul daan ci ñëwaat ci kanam waaye turu yàlla woowu mu tàmbali di allah mooy turu wi nga xam ni bi yàlla di wane matam gi ca suuratul ixlaas moom la jëfandikoo qul huwa allah daa indi ahadiyatu gi nekk gim nekk kenn kenn melul ni ci jëmm kenn melul ni moom ci ay jëf waaye daa di indi sama gi kon yàlla moom yi nga xam ni moo mat bi daatihi mat bi sifaatihi wa afaalihi mooy ki nga xam ni moo yeyoo jaamu ci dëgg kudul moom yooyowoo ak jaamu baatu allahu laa ilaha illa hu loolu lay firi alxayyul qayyum li mooy ki nga xam ni moo am dund gi nga xam ni amul fu mu doore amul fu mu yem kudul moom sa dund am na fu mu doore te am na fu mu yem waaye ginnaaw bi nga xamee ni amul fu doore amul fu yem ba noppi dundam googu ak manqué du ko gar lépp luy gar dundu nit nga xam ni dund gi melatul nam ko bëggee ci mage màgget tawat feebar cër yu bañ cër yu wàññeeku dund guy jeex sonn bëgg a noppalu nelaw gëmmentu dara du ci gar borom bi subhanahu wa taala ndax lan dundam gi daa mat alqayyuumu mooy kii taxawee mbiri boppam di taxawaaleel jaam yi seeni mbir kudul moom doo kooku naam laa ta'xuduhu sinatun wala nawm mat googu dundam gi mat mu boole ci war taxawu ay mbiram taxawuwaale mbiri jaam yi moo tax mu dàq ci boppam lenn loo maanaam li nga xam ne day manquel ak dund laa ta'xuduhu sinatun wala nawmun yàlla du gëmmentu du nelaw gëmmentoog nelaw ak manqué la ci dund ndax nit ki bu nekkee ci rythme mbindeef mi ci biir activité dund gi day dem ba yaramam nagam nagawin woo xam ni bu continuer mën naa ñàkk dund gi mu soxlaa dallu borom bi loolu gaaru ko wa ma massana min luxuub waaye it ki nga xam ni daa nekke mbir di ko bàyyi xel di ko saytu bu nelawee rek am lu ko ca mën a gaar te du ko yëg ko ca mën a gaar te du ko te du ko yëg moo tax ñuy àbb alali jàmbur yépp te duñ ci boole yëglu waxtu nelaw lañuy ñuy jug borom bi nag moom comme que moo yor lépp luy mbindeef di ko bàyyi xel di ko saytu bu gën mentoo baa mu nelaw ab diir loola mën naa nax saay moo tax laa taaxuduhu sinatun wala nawmun naam lahu ma fi samawati wa ma fi ard laayatul kursi nee na yàlla moom li ci biir asamaan ak li ci biir suuf li ci diggante beeg lépp imaam maam bokkar moomeelug yàlla gi dara génn ci moomeelug yàlla gi dara génn ci demal ci suratu taaha lahu ma fi samawati wa ma fi l wa ma baynahuma wa ma taxta sara yaa li ci kaw asamaan li ci biir suuf li ci seen diggante la ca biir suufi suuf ya lépp maa moom kon yàlla moom li tax mu moom mooy daa bind ku dul yàlla yàlla la bind bam mu la bindee la la moom yaa ayyuha nnaasu ubudu rabbakum seen borom ki leen moom lu tax mu moom leen alladi xalaqakum da leen a bind kon borom bee moom moo moom asamaan moo moom suuf si moo moom bindeef yi dund ci diggante bi moo moom bindeef yi dund ci kaw asamaan moo moom bindeef yi dund ci biir suuf lépp lu dul yàlla yaa ngi ci biir moomeelu yàlla gi lahu ma fi samawati wa ma fi l naam man da alladi yashfau indahu illa bi idni borom bi subhanahu wa taala dadi buur bu mat li mu moom da koo mën a saytu ba mat sëkk saytu mayu ci kenn mu def lenn lu dul ci kenn moo tax kuy dugg ci 18 yàlla da ngaa xamut da ngaa réere sa borom subhanahu wa taala sëriñ Murtada Mbàkke rahimahullah dégg naa buñ masaan wax ne di diwa ni may ñi may yàlla mu ne déedéet nee leen diwa xamadi yàlla yàlla kenn du ko xam di ko ñime kenn du ko xam di ko ñime ndax lan bi mu moomee lim moom ba pare loola mu moom nag da koo tiim di ko saytu ba tax na kenn mënu cee def lenn lu dul ci coobereem wala ci ndigalam àdduna fii sax lay bàyyi ñenn ñi di leen istidraat ñuy lappi lappi di dugg ci 18 yàllaat jalub yàlla bu ñu romb cof ca daraak seetlu ngeen lool yàlla bind jalub bind am nañu ca cof léegi yàllaay wërsëgal am nañu ca cof <laughs> yàlla fekk lépp am nañu ca cof sanastadrijuhum min xaytu laa yaalamuun yonent bi ne ne inna allaha la yumli lilzaalimi xatta ida axadahu lam yuflituhu yàlla dina mel ni kuy yuuxal tooñkat bi muy gën a mam rek waaye bis bu ne ko nikk dina xam ni rëccul woon moo tax bu ñu demee ba ëllëg yawmal qiyaamati kenn du wax laa yatakallamuuna illa man adina lahu rrahman ëllëg yawmal qiyaamati kenn du wax ñëpp dañ naan miik laa tasmau illa hamsa biñ nekk onk rek ngay dégg ndax ñëpp a jaaxle ñëpp a sonn ñëpp a tiit kenn génnu ci nag kenn génnu ci ndax lan al aziz moo fa nekk tey man da alladi yashfau indahu illa bi idni ana kan moo am honneur audace ñëw di wax ak yàlla subhanahu wa taala ëllëg yowmal qiyaamati di fa sàkku intervention ci lenn ci mbindeefam ci lu dul ndigalam mënta nekk ku fa wax rek moo la jox ndigal te la ngay waxit lu leer nañ lay doon wa qaala sawaaba naam يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم sànq nee naa xamug yàlla gi dara génn ci wala man moomug yàlla gi ibaara bii nee nañu xamuk yàlla gi dara génn ci yàlla daa xam-xam goo ni xam gu matale la goo xam ni dara génnu ci yàlla ni mu xamee li la xamee li nëbbu kenn ku nekk ci ñun ni mu xamee nit ki fésal moo ëpp li mu xam ni mu nëbbal yim ko nëbbal moom léeg-léeg ay wann rek la ci am ay njot wala mu def dara mu natte ko ni kii kat boo demee lam wax ak lam nëbb bokkul waaye borom bi subhanahu wa taala nee na seeni wax seeni jëf seen mboole mi mbir li ngeen ci nëbb li ngeen ci feeñal laa yemale li ngeen ci def guddi gu lëndëm ak li ngeen ci def bëccëgu dara kàmm laa yemale sawaa'un minkum man asarra al wa man jahara bihi wa man huwa mustaxfin bil leeli wa saaribun bin nahaar waaw bu du doon ak sama xam gi sax ngeen rus sama malaaka yi lahu maaqibatun min bayni yadayhi wa min xalfihi yaxfadunahu min amrillah yàlla daa xam-xam gu matale xam goo xam ni daa ndar képp lépp lu mu war a xam qad axaata bi kulli shay'in ilma looloo tax mënuñoo xam yàlla xam gu matale nun wala yuxiituuna bihi ilma xamuk yàlla gi dara génnu ci te yàlla daa bëgg ñu xam ni xam na lépp damay faral di wax ni même yàlla bind gi mu ak suuf daa bëgg ñu xam ni xam na te man bind gi yàlla bind asamaan ak suuf lim ci jublu mooy ñu xam ni yàlla daa xam te man xaman gi dara génnu ci manam gi tëliwut dara nañ jàng mu jug suratu talaaq allahu alladi xalaqa sab'a samawaatin wa min al ardi mithlahunna yatanazzalu al amru baynahunna lii taalamu laamu taalil la lii ma def lépp di bind asamaan ak suuf samay mbir di daw ci diggante bi dama cee bëgg li taalamu ngir ngeen xam ni anna allaha ala kulli shay'in qadir yàlla mën na lépp wa anna allaha qad ahaata bi kulli shay'in ilma ngeen xamaale ni yàlla xam na lépp kon yàlla mën na lépp xam na lépp naam wala yuhiituuna bi shay'in علمه yàlla gi ni mu matalee keneen ku ci bëgg xam dara yàlla mooy nam mu xamal la loola nga ci bëgg xam mu bëgg nga xam ko ci teyam ci maanaam kenn mënta am xam-xam ci xam-xam bu jóge ci yàlla lu dul la soob yàlla subhanahu wa taala wala yuxiituuna bi cheyin min ilmihi illa bi ma sha yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxul ne yàlla xamaloon na ma dara fàttalowaat ma ko <laughs> ah kay ba mu koy xam da sooboon mu xam ko ba mu ko soobatul da koo dindi ca lam xamoon moo tax mun ko sa nuqri'uka fala tansa illa ma sha allah kon képp ku am xam-xam bu jóge ci yàlla yàllaa la ci jox lam la ci jox téye lu bari nag ci xam-xamam lu bari nag ci xam-xamam waaye saa bu ko neexee mu jëlaat ko naam wasi'a kursiyyuhu samaawaati wal ard yàlla màgg te am dayo yàlla màgg te am dayo yàlla nee na alkursi yu ja xam ni fa la borom bi subhanahu wa taala di teg ñaari ndëggoom yu tedd ya yaatoo na ne asamaan ak suuf alkursiyu ja nga xam ni fala suma borom subhanahu wa taala di teg ndëggoom yu tedd ya borom bi nee na yaatoo ni asamaan ak suuf waaw jëmm jooja nu mu toll kenn xamuk yi baa xam ngeen ni alquran ak sunna dañuy misaalal lu toll ak sunum xel bu alquran ak sunna di misaal lu leer daal ni moo gën a leeru jant nit daa xamul lu gën a leer jant bu alquran ak sunna di misaal lu yaatu daal ni yaatoo na ni suuf nit daa xamul lu gën a yaatu asamaan ak suuf waaye borom moom ab dayoom ab jàmm mënu koo xam wasia kursiyuhu samawati wal naam wala yaquduhu xifduhuma saa borom yàlla moo am kàttan lu doy ne asamaan ak suuf ak li ci nekk lépp ci mbindeef borom bi ni wattu asamaan ak suuf ak li nekk ci biiram yépp lu yomb la ci man diisul ci man bu leen jàpp ni daa jafe bu leen jàpp ni dama cee soxla ndimbal bu leen jàpp ni daa am fu ma àggewul am ñu ma fa mën a teewal déedéet wala yauduhu xifduhuma naam wa huwa al aliyyul azim ndax moom yàlla mooy al aliyul azim mooy ki kawe ci jëmmam kawe ci dayoom rëy ci ay jëfam rëy ci kattanam subhanahu wa taala mbokk yi li mooy ma maani ibaratu ayatul kursi ci lu gaaw laay ji nag mbokk yi dinaa leen ci jox ay dog jël leen dog yi mel leen waa jox jël leen gratuite laajuma ci dara yonent bi sallallahu alayhi wa nee na képp koo xam ni jàng na laayetul kursi ginnaaw jullik farata gune buy dee di dem aljanna jël leen dog boobu ku bëgg dem aljanna ku bëgg dem aljanna jël leen dog boobu ayatul kursi ngoog benn yoon par ginnaaw julli gu nekk cinq yoon par jour ginnaaw jullit suba benn yoon ginnaaw jullit tisbaar benn yoon ginnaaw jullit takkusaan benn yoon ginnaaw timis benn yoon ginnaaw gee benn yoon yonent bi na man qaraa ayatal kursiy dubura kulli salaatin maktuuba lam yamnaahu min duxulil jannati illa an yamuut kuy jàng ayatul kursi ginnaaw jullit farata gu ne dee moo la même dog boobu ci laa ne di dolli leneen jamono bi nga deewagul nga xam ni yonent bi ne deewal tamit aljana jamono bi nga deewagul deewagul te saxoo dogub aayatul kursi ginnaaw julli gu nekk yonent bi ne na fii la yaa ngi ci kaaraangeeg yàlla yàlla moo lay wat moo lay sàmm kon booy dund jëlal dog bi yàlla di la sàmm di la wat booy génn àdduna na fekk nga saxoo dog bi booy dee di dem aljanna baneen dogo ngi nii mbokk yi jël leen yonent na sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na sallallahu alayhi sallam képp koo xam ni balaa tëdd jàng ayatul kursi yàlla dina ko wattu wattul ko lim bàyyi ginnaaw yàlla dina ko watt parce que yow yaa ngi nelaw te moom sànq wax naa ni laa taxuduhu sinatun wala nawm bi nga tëddee di nelawu yow ci yàlla mën a wat kuy nelaw ku jaan mat ku ko mas a dégg bariwut de kuy nelaw ku jaan màtt koo xam ne daa tëdd di nelaw ñu ni fa muy nelawee la ko jaan fekk matt ko am léeg-léeg bu ñu duggul ci yooyu sax borom bi moom ci mbaa xam dinañu sàmm waaye rawatina bu dee daa joxe dog nag dog boobu ku koy def ku nekk yow ci sa jëmmi bopp di nga sàmm waaye càccug jur gi xew fan yii bu dee da ngaa yorub jur kenn du sàcc sa jur alal ji nga yor ci sa biir kër di ko tiit kenn du ko sàcc billaahi billaahi alazim laa koy waat ni képp ku ko def te ko incha allahu loolu ci yonent bi wax di nga ko gis abu hurayrata radiallahu anhu nee na damaa dénkoon baytul maal nee ma di ko garde ba yàgg may yëg kuy yoot di sàkk ci yëf yi alalu jullit ñi la ko yonent bi dénkoon nee na mu ñëw jàpp ko ni ko yow da ngay sàcc tey mu yóbbu la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu wa sallam nee na mun ma baal ma dama màgget te màggleegu ma am njaboot gu sew te ñu aaju woo lool moo ma tax a def nii nee na ma yërëm ko bàyyi ko <laughs> nee ma xëy yonent bi feeñu ma waxuma dara yonent bi kat waaye yonent bi ma feeñu fekk yàlla xamal nag ku mun ma maa faala asiruka albaariha wa abu hurayra ki nga jàppoon bii num mu def ak yow nee na man ko moom kat damaa tawatuk njaboot ak soxla nee na du fi ñëwaati yonent bi ne ko day fen dina ñëwaat nee na ñaareelu guddi gi ma tëru ko ndax gars yi dañoo gëmoon wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma tëru ko ndax xam ne dina ñëwaat ni Abu rek gëme waxu yonent bi ba tëru sàcc bi nañ ko gëmee noonu ba jël dog bi buñ ko jël bu ñuy jël nee na ma tëru ko jàppaat ko ni ko yow woon doo ñëwaat tey moom dinaa la yóbbu ci yonent bi sallallahu alayhi nee na mu waxati ma la mu waxoon sara xooti ba sama yaram daw ma baalati ko xëyati yonent bi ni ma nu mu defati ma ne ko moom di damaa saraxu ba ma yërëm ko nee na du fi ñëwaat mun ko day fen di dina ñëwaat troisième guddi gi nee na bi ma ko jàppee dama ne ko mënoo muusa ko mocc ba du ma la yóbbu ci yonent bi sallallahu bi mu xamee ni caaxaan faaxe ci ni ma kaay ma jàngal la baat yoo xam ni boo ko jàng lépp loo bàyyi ginnaaw yàlla da koy sàmmaale ba keroog nga yeewu nee na ma ne ko siiw jàngal ma ko nee na mu taril ma ayatul kursi yu ma bàyyi ko mu dem ma xëy yonent bi ne sa lu mu wax ma nettali ko ci xew li xew mu ne ma fenkat bi wax na la dëgg tey fenkat bi wax na la dëgg tey jël leen dog bàngoog ayatul kursi yu képp ku ko jàng bala ngay tëdd boo nelewee yàlla sàmm la sàmm la li nga bàyyi ginnaaw fii ci Canaba day am na ak góor gu fi doon tukki ca jamono yu yàgg ya bi muy génn léemu këram ak ayatul kursi yu dem ba àgg fekk fa information dëkk ba nga bàyyi woon ginnaaw de ak lakk dafa am di Canaba ba kër yu bari lakk fa mu ni maa ngi waat ci yàlla ni sama kër bokku ci maa ngi waat ci yàlla ni sama kër bokku ci bi xibaar yi ñëwaatee effectivement këram bokku ci ñun ko bu ñu jommal lu xew mu ni du dara dogub yonent bi laa jëfandikoo rek sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dog bàngoog jël leen waaye secret bu gën a rëy bi laay mujjee ci dog yi <laughs> ku bëgg ismullahil azam ismullahi al azam wala xamu leen ismullahi al azam ismullahi al azam mooy turu yàlla wi nga xam ni yonent bi nee na yàlla du ci delloo ñaan lu ci ñaan yàlla nangu ko lu ci waay ñaan yàlla nangu ko sénégalais yi xam nañ ko de imam mam bookar sama vidéo yi TikTok yi bi ma bind bi ma tiitaree ismullahil azam ci TikTok balaa vingt heures 30 mille et quelques personnes seetaan nañ ko daanaka génn wàllu Sénégal ci ñu nekk TikTok ndax ñëpp dañ koy wër effectivement xoqalehum yay nañ ci ñu wër tur woow yi ndax tur la wu màgg woo xam ne yonent bi nee na ci ñaan yàlla yàlla nangu ko ismullahil azam yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ah l'islam dara du ci secret l'islam dara du ci secret lu di secret lu nekk yëfi jàmbur la waaye du yëfi yàlla yi mu joxe ci l'islam yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ismullahi al azam seet leen ko ci diggante suratul baqara ak suratu ali imran ak suuratu Taaha nee na diggante ñaari saar yooyu fa la ismullahil azam nekk xanaa loolu rek bu ko waxee woon seet ko mën naa yomb ndax lu ñetti saar yooyu bokk rek mën na koo doon kenn ci asalafu saalih ku ñu wax alqaasim abu abdullah nee na bi ma luñ ñu ñetti saar yooyu damaa fekk ca baqara allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayum fekk ci ali imran alif mim allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum fekk ca taaha wa anatil wujuh lil hayyil qayyum mu ne kon alhayyul qayyum mooy ismullahi al azam waa ji mën na koo doon nag ndax ñaari baat yoo xam ni daa taw mboolem al wa sifaat ni ma ko waxe woon sànq mën naa doon ismullahi al azam xam naa ne sama góor gi lii moo tax fu mu daan ñaan rek ma dégg mu naan allahu laa ilaha illa huwa alhayyul qayyum alif lam mim allahu laa ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum doog caa teg la muy ñaan lépp jël leen gratuite ismullahi al azam mooy alhayyul qayyum teg ko ci waxi yonent bi abul alqasim abu abdallahi firil nu ko bokk yi li may daanale mooy ayatul kursi laa ju rëy la maam Bokar laayatul kursi de mënta nekk ñàkk nekk laaya juree ndax yi may waaj a wax bankal sa baaraam tur yàlla la tàmbalee tur yàlla la jeexe allahu la tàmbalee jeexe al aliyul azim benn ngoog ayatul kursi mënta ñàkk nekk aadamu ayatin fil quranil karim ndax lan juróomi tur yàlla dañoo dajawaat ci biiram allahon ci biiram alxayyong ci biiram alqayyuuman ci biiram alaliyong ci alaziman ci ayatul kursi yu mënta nekk ñàkk a nekk laay ji gën a rëy ci alquran ndax lan fukki damir ak benn ci biir laay ji joxe yàlla tur yàlla la tàmbalee tur yàlla la jeexee juróomi turam ci biir waaye fukki joxoñang ci ak benn yoo xam ne yépp yàlla lay joxoñ te yàlla dañoo feeñu ci ci lim boobu maam du fukk benn laaw damir ji ci njëkk mooy huwa allahu laa ilaha illa huwa haa juróom la waaw juróom benn muy fukk benn mel ni kon dañuy joxoon ni damir yi fukk benn la ba mu demee bay jeexal damir jëla ja ca mujj mooy wa huwa al aliyul wa mu confirme ne fii la mate damir yaa ngi nii jëlal allahu laa ilaha illa huwa moom yàlla alxayul qayumu laa taxuduhu moom yàlla sinatun wala nawmun lahu moom yàlla maa fi samawati wa maa fi l ard man da alladi yashfau indahu moom yàlla illa bi idnihi moom yàlla yaalamu damir mustatir ji faa'ilu yaalamu moom yàlla maa bayna aydihim wa maa xalfahum wala yuxiituuna bi cheyin min ilmihi moom yàlla illa bi ma shaa faa'ilam ji nëbb moom yàlla wasi'a kursiyuhu moom yàlla alsamawat wal ard wala yauduhu moom yàlla xifduhuma wa huwa al aliyul azim tur yàlla tàmbalee tur yàlla jeexee juróomi tur yàlla ngi ci biir fukki damir ak benn ngi ci biir di joxewaat tur yàlla wax naa sànq bi may door ni juróom-ñeenti ibaara la juróom-ñeenti jumlay ayatul kursi yëpp boo ci jël lekk tur yàlla ju fés la baa mu ëmb tur yàlla allahu la ilaha illa huwa alxayyul qayyum moom ay tur yu fés la laa taaxuduhu sinatun wala nawmun kooku mooy alqayyul qayyum lahu ma fi samawati wa ma fi l ard kooku mooy almaliku kii moom asamaan ak suuf ak li ci diggante beeg la ca seen biir kooku mooy almaliku man da alladi yashfau indahu illa bi idnihi kenn amul sañ-sañu def dara ci nguuram gi lu dul ndigalam kooku mooy alazizu yaalamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum moo xam lépp xam li weesu ci sunu ginnaaw xam li ci suñ kanam te amagul nu muy amee kooku mooy alalimu wala yuxiituuna bi cheyin min ilmihi illa bi ma chaa xam-xamam daa peeg lépp te kenn mënu cee peeg dara lu dul la ko soob kooku mooy almuxiitu wasia kursiyuhu samawati wal ard kooku mooy alwaasiu wala yauduhu xibduhuma lu tol ne asamaan suuf nga ni li woyof toy la ci man kooku mooy alqawiyu moo tax kooku moom moom rek mën a nekk al aliyul azim ayatul kursi mbokk yi ci yàlla la tàmbalee ci yàlla la yem tur yàlla la tàmbalee tur yàlla la yem juróomi tur yàlla ci biiram fukki damiir ak benn ngi ci biiram yu joxoñaat yàlla ibaar yi ci nekk yépp ay tur yàlla yu fës la baa mu ëmb ay tur yàlla bokk yi laaye joo xam ni ci yàlla la jóge ci yàlla la tàmbalee ci yàlla la yem ci yàlla lay wax waxul ci keneen ku dul yàlla ndax laaye jooju mënta yor dayob yàlla subhanahu wa taala ah kay loola tax yonent bi jox ko melob ahdamu ayatin fi lquran al karim mbokk yi dégluwaat leen laaye ji dégluwaat leen laaye ji te jéem koo mokkal te jël dog yooyu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 ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين العظيم صدق الله العظيم بارك الله ayatul kursi ngoog dog baa ngoog jël leen ko gratuite wasalaam salaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaa wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ah cheikh mohammad ma sha allah ma fiika kaana wala yazaalu yaxruju min fiika kon nag laa faddallaahu fuuka alquraanul karim sunu boroom subhaanahu wa taala dañu cee wax ci suuratu naxl audu billahi min alsheytaani arrajim wa anzalna ilayka dikra litubayina linnaasi ma nuzzila ilayhim yaakaar naa ni suñu borom subhaanahu wa ci laaya jooju da cee wax ni yonente bi sallallahu alayhi wa ñun yàlla ñoo wàcce ci yow alquraanul karim ngir ngay leeralal nit ñi li nga xamante ni moom lañu wàcceef ci ñoom te bu ñu xamee ni al ulama warasatul anbiya kon dañoo jàpp ni Cheikh Mouhamed mii toogoon tey jii di wax lii mu wax te mu màgg lool doon wax li gën a màgg jóge ci ki gën a màgg concerné aay bi gën a màgg ci alquranul karim moo toog toogaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci fii ñu ñu nekk kon nag moo ñu doon leeralal lenn ci li nga xamante ni moom lañ wàcce ci nit ñi muy aaya boo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi la moo ko melal ni moom moo gën a màgg ci alquraanul karim sëriñ bi leeral na li nga xamante ni moom moo tax sifa boobu wala melokaan woow mu am ko wax na ko ci ay côté yu baree bari ci juróom ñeenti melo yi nga xamante ni moom la moom la ibaaraat yooyu tënk waaye waxaat na ko ni aaye bi dafa tàmbalee ci yàlla yam ca yàlla léppam dara génn ca yàlla boo tàmbalee ci baatub allahu bi rek ibaara boo jël rek mën naa ànd ak moom ba kere muy jeex tàkk kon ci la tàmbalee ci la yem waaye nag mu jox leen ca macha allah lu am solo loo xamante ne jaaykati ndox koy soxla soxla nañ ko lool muy dog yi nekk ci biir waaye dog yi ci gën a am solo mooy dog boo xamante ne day boole àddina ak àllaaxira te wax na leen ko ci biir kon aaya bi kon yaakaar naa ne dara desut lu dul rek jariñoo ah moom nag Cheikh Mouhamed léegi-léegi dama ko daan wax xaw ma dina ko fàtte wala du ko fàtte ni moom man de fu ma gis audioom wala ma gisu mbindam dina bu ma amee la ma gënal dama koy digloo wala ma liir ko dama koy yemale Yusuf al Qardawi ni bu ma gisee téeréem bala ma am jàmm rek dama koy jënd bu ma amul xaalis sax bu ma fekkee ma man koo leb dama koy leb kon foofu la tolluwaayam ci man toll macha allahu moom ci ni ma koy misaale ci alquranul karim ah li suñu borom subhaanahu wa taala doon wax ca suuratu eh, ar raad wala waaw suuratu raad ba wala ibrahim sax la ah, bi muy misaal garab gu barkeel googu naan tuuti ukulaha kulla xiinim bi idni rabbiha moom macha allah njëriñam foofu la toll saa su nekk rek bu àddoo nit ñi jëriñu waaye bokkul ak ka nga xamante ni dafa nekk ca suuratu naxli te suñu borom subhaanahu wa naan ay na maa yuwajjihu laa yaati bi xayr kon moom safaanu kooka la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 sant ak ngërëm ñeel na leen ci ànd ak ngeen di ànd ak Thiénaba TV wali say bi ahadun yàpp ri an na suuna